waaw kon sëriñ Mourtala ñu ngi lay sant bu baax macha allah euh, jaanib at tarbawi bi li nga ci wax am na solo lool macha allah ndax sëriñ Tuubaa itam ñu àndaloon ñëpp daanaka mën nañu wax ni loolu la seqoon ak ñoom te muy maarale leen ak seen borom subhaanahu wa ndax fekkoon na fi ñu doon jullee ko woor ak mm. aj ak azaka euh, gëm ni yàlla am na kon loolu mooy mbirum fekku fekkoon fi itam ñoo xamante ni gëm bi gëm yomal xiyam gëm li nga xamante ne mooy bis penc euh, xisaab ak misaan ak euh, jéggi siraat ak dekk lépp gëmoon nañ ko hmm. waaye nag lan moo desoon mooy manqué nañ koo xamante ni dana jëlee nit ñi ci jukko yi yóbbu leen ci jukko yee dana laabal xolu euh, doomu aadama yi seetal seeni bakkan loolu dafay aajowoo koo xamante ni ab gidd lay doon boo xamante ni yàlla suñu boroom subhaanahu moo koy renforce jox ko doole xam yoon wi nga xamante ni moom lay leen nit ñi te bu leen ci jaarloo itam ñu ñu daal di cee jaar loolu nag ci la dem ba indi résultat yu rëy rëy rëy jikko yoo xamante ni am na ko ay jikkoom nag ak i meloom am nañu ak wuute mm-hmm. ay jikko ak i meloy kaw bokkul mm-hmm. loolu ñaar la mooy sifaat ak axlaaq mm-hmm. euh, di leen wax nag ci sifaat mooy ay meloom yi nga xamante ni yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daf kaa mooñee woon loolu moom lañ bëgg a ñëw nii ndax loolu euh, bu dee melo yi dafay séparé wu ak li nga xamante ne mooy jikko yi jikko yi moom mooy résultat bi nga xamante ni tarbiya gi moom la am mm-hmm. euh, melo yi itam mooy melo yi nga xamante ni moom noonu la ko yàlla suñu borom subhaanahu bindee woon jëmm ji noonu la meloon noonu la baaxoo woon daan dundee Euh, noonu mooy ni mu aadoo woon daan doxalee ci diggam ak nit ñi ci diggam ak mbirum àdduna ak diine ak ni nga xamante ne mooy ay tasarrufaatam mooy ay joxalanteem ak mbindeef yi mooy ay doxalinam euh, bu ñu ñëwee ci ay meloom danañu gis ni nit la woon koo xamante ni yàlla subhaanahu wa taala daf kaa defal muy ku digg doomu nekkul ku njool nekkul ku gàtt nekk boroom xar kanam bu rafet macha allah boo ko gisee euh, jub si ko da nga daan gis macha allah muy muñ lu bëree bëree bëree bëri newoon koo xamante ni itam yàlla dafa daf kaa defaloon xëyba li ñuy wax xëyba nga xamante ne mm-hmm. ku ko gis daf koy respecté ngir li mu am ci ak xëyba buur yi ak ñi nga xamante ne ñooy njiit yi ak nasaraan si ñoom ñëpp dañu ko ragaloon mm-hmm. amu ci kenn koo xamante ne ñeme ngaa toog ci mm-hmm. jotaayam ci lu dul ndigalam ndax noonu nekkoon nit koo xamante ni boo ko daan jubsi moo xam da ngaa jege moo xam da ngaa sori da nga dégg ak kàddoom bu fekkee ne mu ngi wax borom dënnu bu daan diir la mm-hmm. newoon koo xamante ni itam ku fonkoon ak colka gu weex la fonkoon itam ak col goo xamante ne dafa set nekkoon ku ràññee woon ginnaaw dunduk sëriñ bi ci ñett kaala yoo xamante ne moom la daan laxasaayoo ci boppam bi mm-hmm. euh, newoon itam borom xel moo xamante ne xel mu dëgër la borom xalaat yu ñaw neewoon koo xamante ni itam yàlla suñu subhaanahu wa taala defaloon benn maanaa du ko faat lu mu hmm. dégg ci yow daana xam boo toogee ay at mën na la kaa waxaat euh, loolu waraloon sëriñ bi daan ko toogloo ci wetam ngir muy takk ay nettalem ndax moom du ci yokk du ci wàññi ci loolo newoon na itam jëmm joo xamante ni lépp loo ko laaj ci masala fisaase da la koy tontu amul sax xaaral ma yër téere ba wala xaaral ba ma am jot lu yàgg du ci am fi saase la la koy tontu ca na nga ko gën a mu gën a yelle newoon itam ku gaaw ci mbind am mbindam mbind mu yéeme la woon ndax benn bis mës ci benn bis mën na cee bind lu mat ay junni junni bayit ci diggante bu gàtt ci ay alquran ay alquran ak ay abyaatil eh, abyaat yoo xamante ne ay xasaayid la noonu itam koo xamante ne lu bari ci ay doxalinam da ci daan toppandoo sëriñ bi ci orienté gi muy orienté nit ñi ci seeni jaam yàlla suñu borom subhaanahu ak itam ay doxalinam ak ay jikkoom yoo xamante ne dakaa takkaayoo mel ni dëddu àdduna ak toroxlu ak sàmmoonte ak nekk nit koo xamante ni mbiram dafa kawe ba bu taxawee boo ko xoolee rek danga naan xanaa kii moom mooy seriñ Touba bokk na itam ci yi nga xamante ne ay jikkoom la bu ñu génnee ci euh, wàllu melo yi jikko yi nga xamante ne moom yu ñu ràññee woon la ci moom bokk na ca war na aw mer war na aw mer ak bañ gërëm loo lu dul loo xamante ne yàlla subhaanahu wa ta'aala daf kaa gërëm mm-hmm. ak nekk koo xamante ni ku tabe woon loola dinañ ci gën a yaatal léegi incha allah ndax tabe gi moom ñëpp xam nañ ko te itam nekk lu yéeme loo xamante ni royukaay la ci woon sëriñ Masamba nee ñu nekk ñu nekkoon koo xamante ne daawul téeméer yegg na ci ba ñi daan ziyaar si këram ci ay gan amu ci kenn koo xamante ne mën na laa wax ne la man mës naa kaa fekk mu meer kii ziyaare si du mën a xàmmee jamono bi mu meree ak jamono boo xamante ni dafa bëgg mm-hmm. nee na euh, kooku nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Sylla boo demee ci téeram ba ma ngay wax ni man daal damaa jàpp ni euh, aaya bi nga xamante ne moom mooy yàlla subhaanahu wa taala fi muy wax ni faman afa wa aslaha fa ajruhu ala llah faman képp koo xamante ni yaa ngi jéggale yéwénal sa diggante doomu aadama yi saw yiw yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moo la ko gàddul damaa jàpp ni aaya boobu la sëriñ Masamba daan jëfe ndax bëri na loo xamante ni daf ko daan dëgg tànkam ci loo xamante ni mënul na ci doxee neneen ci euh, doxalin ci yoon yoonal waaye day jéggale di jëlale mel ne loolu musta am naka noonu itam nekkoon nit ku mën a nëbb suturee nit ñi nekkoon nit koo xamante ni itam mm-hmm. pakastal yi ngay def dala koy nëbbal ba mel ne dafoo dara mel ne seet seet seet seetluwul dara ci say mbir nekkoon nit koo xamante ni itam dafa fonkoon waxtu yi nga xamante ni daf kaa feex muy toog ak nit ñi di waxtaan ak ñoom mm-hmm. ne woon koo xamante ni mer moom ni ma la ko waxee léegi daf ko daan wan ba mel ne xolam benn toq ci wàllu woowu noonu amu ci hmm. nee ñu sax benn bis wax na ni nit ñi de nee nañ man duma mer waaye li am ba am mooy man damay mer xanaa kay sama mer dama ko gaaw a génne ndax li ko waral mooy dama ànd ak jëmm yoo xamante ni seenu gaawaay moo gën a gaaw mi lax hmm. seenu tar ci mën a lore moo gën a gaa moo gën a yéeme gaynde guy fàdde te ñoom foo xamante mer na seen mbir bala maa yëg fekk na def nañ ko noppi looloo waral sama mer du ko gaaw a génne nee ñu itam boroom xam-xam yi muy fuqahaa yi ak mutasawwifun yi daa leen dajee ci moom mu dee leen jàngal dee leen teral dee leen màggal nekkoon ku bëgg nit ñu baax ñi képp koo xamante ni itam dugg nga ci moom ta ngay ab boroom xam-xam daana def loo xamante ni ci sunna la bokk mooy jug taxaw Euh, jublu si la wuti ji la ànd ak yow téye sa loxo ñëw togaat ak yow ci si si jaadaam newoon koo xamante ne itam ci loxoom mën nañoo wax ne yoonu murit ci ak dundam tukki yu bari yooyu mu daan def mhm. waral na ñu bëree bëree bari ci murit yi mhm. tàbbi ci lislaam mhm. ñu bëree bëree bari ci jullit ñi newoon Sénégal itam tàbbi ci ci euh, yoonu yoonu murit yaatal na yoonu murit ci gox goxaan yi nga xamante ne moo nekk ci biir Sénégal buñ dee jël nag exemple ci loolu nga xamante ne mooy nim tabee woon danañu nettali benn nettali bu yéeme boo xamante ni euh, mi ngi ko seqoon ak benn tubaab boo xam ne ab commercant la woon ndax si Masamba bu ñu fàtte tabe gi euh, dafa jéggi woon dayo da jox ay jegeñaaleem di jox ay mbokkam hmm. di jox way aajo woo mooy way ñàkk ñi di jox ñi nga xam ne dañoo am soxla di leb bay joxe di joxe bay leb kon bokk nga xamante ni loolu histoire moom noteeguñu ko ci. mais mm-hmm. ñu mës naa leb benn tubaab boo xam ne ab commerçant la mm-hmm. bi mu amee ab diir tubaab bi ñëw di ko fayeeku loolu fekk lam leboon sëriñ bi nekkul ci moom tuwaab bi dem ci benn ci autorité ya nga xamante ne ñoo newoon di Kaolack daal di koy fay kalaame. Euh, ndax autorité yooyu ñoo taxaw tubaab bi ne ko na la fay nga jox ñu li ñu yoreel yewit looloo waral tubaab ba dem kalaame ji ko ab diir taalibe wuti police bi nga xamante ne moo ne woon Kaolack ginnaaw bi nga xamante ne dégg nañ xibaar bi fees fa dell ñu daal di jël sëriñ bi yóbbu ko hôpital ngir ragal lenn loo xamante ne ay lor la euh, tàbbi ci moom nee ñu ñenn ñi nga xamante ne ci taalibe yi ay mbokkam lañ daal di dajale alal bu bëree bëree bëri bëri loo xamante ne faaw xanaa lu mën a fay tubaab boobu daal di koy ci euh, hôpital bi mm-hmm. jox ko sëñ mm-hmm. waaye ci jotaay bi sëriñ bi séddale lépp te fayagul bor bi mm-hmm. séddale ko way ñàkk ya fa teewoon ak ñi nga xamante ne dañoo aajowoo ñu fa teewoon muy lu yéeme yéeme yéeme yéeme loo xamante ni kenn mësukaa dégg ci histoire ci loolu des na nettali itam ni mës naa toog ak sëriñ Ibrahima Diop almashari yi sëriñ Ibrahima ne ko man de sa tab gi yéem na ma lool di kafak moom di natt fan la toll ci tab comme ni ko nit ñi di waxee siiw na boobu mu ko mu ne xaaral ma natt ko mu ne ko man de sa tab gi yéem na ma lool waaye man de ni ma tabee ma nit ah est-ce que yegsi nga fi ma yegsi mu ne ko man de Ibrahima Diop mën naa fexe ba képp koo xamante ne laaj nga ma. comme que yow da soxla rek li nga ma laaj ma jox la ko fi saasi ak lu mën a doon nag sëñ ma sàmm na ko yow de yow ci sa jëmmi bopp moo la moomoon fi mu ne ni may naal bu yàgg looloo waral waykat ba di wax ni wa naral wa taral wufuuda alal wufuudi bi baabihi sibyaanuha wa rijaaluha wa nisaauha da ngay gis ay délégation yu góor yàlla ak i jigéen ak i tànk di raj loo ci buntu këram di dugg ko génn bëccëg ak guddi nag te dara yóbbu leen fa nag lu dul xam ni saa bu ñu fa demee seen aajo dina faju ci mbirum àdduna ba tey muy wax ni wa tara al aramilu aakifiina izaahu qisman li naxwi yaminiha wa simaliha mhm. ndeysaan da nga gis soxna yi nga xamante ne ñooy borom njaboot gu sew yi nga xamante ne yàlla dafa dogal seeni borom kër noppalu di nekk ci ay basangam ci ay werndaayam ci càmmooy ak ndeyjoor tout le temps ngir xam ne kii képp ku ñëw ci moom rek bala ngaa dem say ajo dana faju ba tey waykat ba ma ngay wax ni fa mislukum fil wara yaa xayra kulla fata maa kaana xattu wa xatta lam yakuni man de seetlu naa bu wér a ci taarix moom ku ne yow gisaguma ko ci mbindeef yi te xam naa ni itam dootul amati ba fi mu ne nii itam gisaguma ko waykat boobu moo ngi wax nan ko yaa waahibal mina nib nil waahibal mina nib nil waahibal mina nib nil waahibal mina ni mu naan ko yow doomi aji joxe teranga yi sa baay de tamit noonu la meloon da daan joxe ay teranga sa baay boobu nga xamante ne mooy sëñ Mor Anta Sali itam di doomi sëriñ Xabibullahi ma daan joxe teranga yi sëriñ Xabibullahi di doomi sëriñ Maharam maam Maharam moom nga xamante ne tamit da daan joxe teranga yi lool newut lu bees ci yow nii nga mel noonu la say maam ak say baay meloon loolu waral sëriñ Moussa di ko yaxal di wax naan musula xam kalpe banaa koppar foor ngir lum ko jox mu dal di jox bàmba kafoor mu ne ba tey musula faggul àdduna ak donoom ya lum mësa am wasaare jox moroom ya musula denc xalalam ci banque lum mësa jox waa musoo beeg mbàkke musula jind pàkk mbaate ay dër jàkkaam la daa fàkk di toog ci ay der mu ne itam musula xam xejj ak seen du waabe du tëj këram moo yaatu nib jàllaabe muy tab goo xamante ne tabe woon na ko ba yàlla suñu borom taala defal ko e, yaatu goo xamante ne nit ñi ñëpp xamee woon nañ ko ko nga xamante ne buntu këram moom daawul tëje tout temps bis bis bu ne waxtu wane nit ñi dañuy fees dell fi nga xamante ne moo di këram ñu ñëw jàll ci wax lenn ci li nga xamante ne mooy euh, toroxlu gi nga xamante ne moom la toroxlu woon ndax ci ay jikko yu kawe kawe kawe la bokk muy toroxlu ak dëddu àdduna te moom Serigne Massamba da cee wane woon benn exemple bu rëy rëy rëy boo xamante ni liñ ci nettali lu yéeme yéeme yéeme la ndax ne ko sëñ Murtala waxee léegi tamuy ñàkk gim mu daan ñàkk tëdd ci ay lal ak fonk gi fonkoon di toog ci ay dar ak e, ñàkk gim fi ñàkk bàyyi benn taax ak nekk gim nekkoon koo xamante ni mënoo dem fenn bañ na la dër yi toolu dër yi Serigne Massamba moo ko jënd ci àllalam loolu lu yéeme yéeme la nga xam ne dafa nekk nit koo xamante ne tarbiya gi sëñ bi def ci moom daal ci mare la ko yàlla suñu borom central ba yàlla kese saf ko loola dafa des ci moom ma ngay wax ni tamit sëñ Moussa Ka ma ngay wax ni daarul karim la ma am cig daaru mm-hmm. maam Thierno faatee ko ko wax fa daaru mm-hmm. musula xaste du xuloo du dóore yërëm na ndaw taral na mag mooy fóore ku weddu laaj ko cheikh ma kumba Touré Abdul Karim Touré ña dooni fóore hmm. xam naa loolu moom doy na sëkk ci képp koo xamante ne da ngay gëstu ay jikkoom euh, yu tedd yooyu nga xamante ni mooy makaarimal axlaaq hmm. ndax bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala yónni ko du dara lu dul mottali ay jikko yu rafet hmm. innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq te itam dañuy wax ni itam bu ëllëgee yom xiyam li nga xamante ne moom lañuy njëkk a peese mooy ay jikko yu rafet kon loolu benn tomb la ci tomb yi nga xamante ne waris na kaa jàng ci dunduk Serigne Massamba mhm. ñu bàyyi Serigne Mourtada wax ci lu aju ci alaqatuhul ijtimaaiya wa diplomasiyatuhu mooy mhm. diplomate bi mu amoon ak relation sociale bi nga xamante ne amoon na ko ñu wàccee foofu kon kàddu yi waa mm, koy sëriñ Xaasim <clears throat> kàddu yi leer na lool te am na solo rafet na lool mooy muy eh, muwaasafaat yi nga xamee ne sëriñ ma amee woon na ko ak xususiyaat al fardiya yi nga xamee ne yàlla mokk moo ko moo ko ko eh, jagleel jëruñu ci jëli siwaat loolu moom ba ci ñi nekk ci mbedd mi sax xam nañ ko waaw ah, eh, umpur kenn daal umpur kenn xam naa nag loolu xususiyaat yooyu nga xam ne si ci la suñ xaasim tëjee mooy man foofu foofu laay sofee waaw foofu foofu laay sofee ndax xam naa li wax ci foofu lay tënk lu ci ëpp ci foofu lay tënk suñ ma sàmm dafa nekkoon diplomatie boo xam ne dafa amoon relation yu yaatoo yaatu alaqaat ijtimaaiya yoo xam ne foo takk weesu na ko doonu la waral eh, eh, daf mel na lii almuhaddisoon yi tuddee ne bala ngaa jàngee feneen nanga nga jàng ba jeexal sa xam-xam yi waa borom xam-xam yi sa waa dëkk bu noppi bu ko defee nag foo dem nga dem fa suñu ba laata muy tëj yenn relation dafa dikk ci ab dëkkam am ak relation ñëpp gannaaw ba nag mu doon di génn nag dem ci al alaqaat xaarija al tariqa al muridiya yëpp def na ko nga xam ne maam Cerno wax na moo ko jàngal suñ mbàkk bu sëriñ moo ko jàngal sëriñ mag gi moo ko tarbiya waaye maam Cerno nag suñ Masamba relation bi amoon ak moom taxoon na mosu koo jàppee magam waajur rek la ko mas a jàpp mosu koo jàppee mosu koo jàppee magam mukk waajur rek la ko ma ko la ko la ko la ko a jàppee comme ni nga xamee ne sëriñ suñ Masamba waajur la ma a jàppee sëriñ mag bi boo ko mas a jàppee waajur jàppee ko euh, a cheikh dégg nga ba noppi Euh, mag gi ko mag nag doo doo di dikk maanaam loolu ci xususiyaat ba tey waaye nag Maam Cerno moom suñ Masamba doo ko defoon doo ko defoon sëriñ def ko magam nga xamee ne suñ Moussa Ka sax muy wax ci biir marsiya mi daan ne am at musta jàll loolu si Cheikh Masamba dem Darou Mouhty yàgg fa lool def ab diir di sikkar di jàng xasida yi jàng jàng njàng mu am solo njàng mu am maanaa fa lay nekk ba bëgg suñ Maam Cerno yéewu du du du yéewee ko mukk maanaam fa lay nekk ba suñ maam Cerno yeewee ko bu ko yeewoo mu daldi mu daldi a yeewee ko ci abjaad yi suñ eh, xaasim doon wax foofu la ko suñ maam Cerno waxee woon daarul karim la mas am ci daaru maam Cerno moo moo ko waxoon fa daaru maanaam loolu ci daaru moxti la noonu it noonu la meloon ak eh, Seydi mooy maam Cheikh Anta gaawaan Cheikh Massa mosu ko jàppee lenn lu waajuram waajuram rek la ko mës a jàppe ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne da nga koy cité ne Cheikh Massa Sam nii la nii la ko jàppee ah, jàppoon na ko mag wala nangam ak nangam waajur waajur rek la la leen mës jàpp loolu it xam naa ne euh, relation yooyu nga xam ne da ko amoon ak ay magam amoon amoon kook ñépp ba ci njabootu Serigne Touba yi mooy su ñoom sëriñ ñoom suñu Mor Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadl nga xam ne suñu Massamba moo leen magee ñaar fukki at teewul ne Cheikh Massamba yi da leen a jàppe woon euh, euh, da jàppe woon maanaam euh, ay nawle ah, def leen ay kilifa bu baax a baax jàpp def leen ay nawle dégg nga loolu nag dana leer ci kanam waaye suñ Cheikh Thioro jàpp naa ne ko nekk xam na ko suñ Cheikh Thioro nekkoon magi sëriñ ma Massamba nekkoon rek ci sëriñ bu mag bi suñ Cheikh Thioro dafa nekkoon ndar ndar la dëkke woon bim faatoo wàccu liggéey sëriñ mag bi suñ Masamba la la woolu woon ne ko demal ndar nga daal di ma koy jaaleel suñ Masamba jénnee Jurbel continuer dikk ba ndar di jaale sëriñ di jaale sëriñ Cheikh nga xamee ne loolu relation dafa nekk relation yoo xam ne xëy na sëriñ bi da ko seetlu ci sëriñ Masamba tax mu daal di koy yónni mu dem def njaal mooma suñ ma saama sax nee nañ keroog ba muy muy jaale ji dafa ànd ak mbooloo moo xam ne foo ko takk weesu na ko foo toll dégg riir mi suñ ma saama dikk jaal jaale suñ suñ Cheikh Coro ba noppi euh, bi mu jaaree bi ko jaalee ba noppi nag génn war a jawal si ñëw Jurbel laataa mu egsi nag mu ne nañ jaar ci kër borom ndar ñu daal dem ca pale ba bay nañ ca pale bi nee nañ bi ñu dugg sax borom ndar moo ngi tiit lool ndax xëy ba gi nga xam ne nekkoon na ci moom nga xam ne loolu xususiya la xëy ba gi nekkoon ci moom tax na moo ngi tiit lool mooy dugg ci pale bi mu murid yi mu àndaloon muy taalibe yi daal di daaj xaside yi xaside yi tàmbalee riir nga xam ne gis mu xaddamaat jàng nañ ko fa keroog pale ba lool xam naa ne moom boobu mooy njëkk yi nga xamee ne eh, ñuy jàng xaside xasida yu mel ne muqaddimata a bi ci ci pale ko suñ loolu moom mën na ñaa ne si masaam mu ko njëkk a def te xam naa ne ba léegi niwaa na nga gis koo xam ne koo xam ne def na ko léegi suñu masaam moom diggee ca pale ba nee nañ tuwaab bi dafa tiit lool dafa tiit lool bay lax ne ko sa mbooloo mi nga jénne ko mu ne ko déedéet duñ jénn mukk mbooloo mi moom man man ak ñoom ñoo ànd duñ jénn mujj bi suñ ma sàmba ji giseeg borom ndar bay dem ña fa toogoon borom ndar di leen di laaj ne leen kii mooy kan kii xanaa mooy sëñ Tuubaa mooy leen déedéet kii de du sëñ Tuubaa pourtant rakkam la ba noppi it mooy rakkam ji gën a ndawe ndax moo caatoon suñ Maam Mor loolu it jëmi bi kaw lool gaa sax biñ demee ba jénn am na naaru gànnaar bu fa nekkoon mashab ba mooy la xew doo ko def ay abyaat euh, lépp boo gis bu ñuy wax diin abyaat rek dañu bëgg la ñuy wax ñu teg ko ci firnde gu wér euh, suñ moo saako sax moo ñu wax daal ne ca moom xat la ko yebal mu dem ndar jaale magam cheikh coro gis borom ndar dongaam ya jàng nañ jàng nañ fa kër borom ndar muqaddamaat ak jësbu toj foog kaadar kaadar yi nekkoon ci buntu ba na ci boo ko mu nekk lu yéeme nga xam ne bi moom dafa dañoo dañoo dañoo dañoo filmaal la am ci ab yaat daan nañu qaalu ma sàmba awil xadimu ataahuna nara fiihi jamia sifaatihi qultum ru'un saqulat zujaajatu qalbihi fa bada misaal alcheikhi fi miraatihi hmm. mu ne kooku sax du ma sàmba waaye seetu du sëriñ Tuubaa waaye nag seetu sëriñ Tuubaa la ab seetu ku bëgg xool sëriñ Tuubaa yi mënoo ko xool ci moom rek moo tax mu ne nee nañ suñu Masamba moo fi dikk wala sëriñ Tuubaa moo fi dikk mu Cheikhul Khadim ñu ne ah déedéet bu fi dikkut it wax dëgg yàlla melokaan yi nekkoon ci moom yëpp rek gis nañ ko moom mu teg ci daan daf mel ne ab seetu boo xam ne dañ koo teg suñ Masamba nekk ab nekk ab seetu ci sëriñ Tuubaa ku bëgg gis sëriñ Tuubaa it man koo xool ci moom nga gis na loolu nekkoon lu kii maanaam loo xam ne moo tijji ay relation tukki yooyu nga xam ne moom la doon tukki dem fu mel ne Ndar jóge fa def mel ne Saalum jóge fa def mel ne Jurbel jóge fa def mel ne Bawal ba Tàmba daan na fa dem dëkk yooyu nga xamee ne jamono jooju dem fa nii ñu jafee suñu mosaaka yëpp tudd na ko nee na daan daan dem ba ci dëkk yooyu daan na fa dem di fa def ay ay ay ay tukki tukki yooyu nag yëpp nag da ko daan def ngir mën a tasaare ñaagaleem sëriñ bi te dëkk na boo fa tukkee ne force nga am fa relation waaw fa ay alaaqaat ay duggante duggante yoo xam ne yàlla kese tax nee ba fii Njaasaan Seex Masamba dem na fa ba maye fab oto ah, kilifa ga mu fekkoon muy si Njaasaan mooma mm-hmm. Seex Masamba joxoon na ko oto Cheikh Ibrahima Niass ku nekk xamoon na ne xaritu sëñ Masamba la woon xaritoon xaritam la woon lool sax xaritam lawoon lool amul amul leen lañ ciy sëkk moo tax suñ Moussa sax mooy naan tabee ko te tabax jumaa yu boppam na Cheikh Ibrahima Niass xaritam yaa ne Cheikh Ibrahima Niass mi nekkoon xaritam am na ci sekkar yu bëri bëri nee nañ si Masamba relation gi nga xam ne amoon na ko Cheikh Ibrahima Niass moo tax mu jox ko ko sekkar yu bëri bëri nee nañ ci si ma la ko jëlee suñ Babacar Sy it relation yu mel noonu si Masamba amoon na ko da ba ci Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yi yu bëree bëri neewaa na nga dégg ci du ci tudd Sëñ Masamba ndax sax naan Sëñ Babacar Sy ñu ne ba toll ci njàng bëgg ko lool gisu ci gisu kenn koo xam ne mën na ci am ak moom ku dul ñaar ñaari nit kooku nag mooy Sëñ Basiiru moom sëriñ mag bi ak ma Masamba mi nga xam ne bàyyam la woon nee na ñoom ñaar ñoo nekkoon ay xaritam ci njàngum xam-xam daraan toog ak ñoom di wax ak ñoom arab arab yoo xam ne nee na daal mos sa dégg arab yu mel noonu ñoom dong la ko mos a déggee kon suñ bés yi da nga gis ne tukki gi mu tukki moo ko may mu mën a am relation ak suñ Babacar si suñ Massamba yi tukki gi mu daan tukki moo ko may ak euh, suñ Babacar si daana ko fekk Louga Louga gee euh, daana ko fekk foofu ci kër soxna Assu soxna Assu si mu suñ Babacar si nga ne la ma nga foofu ci Louga suñ Massamba ne dikk na fa ba tàyyi au moins sa ko son waaye kër gi mu dendal ca côté ba nële euh, côté Samal bi côté bët gànnaar euh, mooy kër càmmeen yooyu foofu si ma sàmm daana fa dikk am fa ay weeri weer daana fa am ay weeri weer doo doo mën a toxu dem feneen kon nga gis ne loolu relation yu la yoo xam ne maanaam tukki yooyu moo moo moo jur la moo moo tijji relation yooyu nga xamee ne euh, relation sociale la loolu moo moo ko tijji ba ci bi mu jógee fii ni meloon ak euh, suñ fàllu ku nekk xam na ko nee bi suñ fàllu di gën di nekk gone da ko daan boot di ko di ko tëngoom di ànd ak moom ci mbedd yi dem suñ Modou Moussa it ma Massamba tukki bi nga xamee ne ci la ci la làqoo ci la ci la ci la wàccum liggéey ku nekk xam na ko tukki boobu nee nañ euh, suñ Massamba daa jaar diggiñ bi mu jaaree diggiñ fekk fa soxna ami ndaw soxna amindaw soxna la woon ci sëñ Mahmoudan Jobbe moo jur sama waajuru góor soxna ami ndaw moom nee na moo mujjee fóotal sëñ Masamba moo ko mujjee fóotal mu jógee diggiñ jaar Taïf bi mu di tàgg sëñ Moussa bi mu koy tàggu tàggu nag bay dem nee nañ ñu ne sëñ Moussa xool ko xool ko mu yàgg daan ne ah waaju góoree ngi nii waaju góoree ngi nii koo xam ne ba fi sa baay di nekk daan jàppale bi mu jugee jógee muy continuer di di di la gën a jàppale ci li mu ne waaju góoree ngi nii naa nag noonu ci la jóge jógee Taayif dugg biir Saalum bi mu dikkee Saalum dikk ba Kaolack ke suñ majang moom moom moom këram la ko defoon moom ke suñ majang ke suñ majang géy nga nekk fee ca côté kawlax suñ ma sàmm këram la ko defoon nga gis na kon kooku ay euh, xayaat diplomatie gu am solo dund na ko mm-hmm. ba ci euh, dakaar sax daana dem ba Castor Tijaani daan daan daan daan yëmu ci moom lool suñ mu sàkk ni ñu koy nettalee ti tijaanee naan labbayka njool ma jay saa xaadiru ak muridu ak imaamu euh, nu ngi ko waxee ba ab yaada jàll nga xam ne yooyu yëpp da ci feeñal relation yoo xam ne amoon na kook euh, maanaam ñu nekkoon ca Dakar muy lébu ya ak tijaan ya fa nekkoon ak xaadir ya fa nekkoon ku ci nekk amoon amoon naag ñoom ay relation yu dëgër dëgër hmm. ba ci taaleen yi yi nga xam ne ci Louga amoon naag relation yu dëgër a dëgër ak ñoom kon suñ ma sàmm wax dëgg yàlla diplomatie gi nga xam ne amoon na ko mm. ak alaqaat alijtimaa yi gi nga xam ne amoon na ko wax dëgg kenn mënu ko tënk kenn mënu ko tënk mm. waaw ma ne sax kenn mënu ko kenn mënu ko faram dañ koy tënk rek mm. waaw dañ koy tënk rek waaw euh, kon loolu ab jukki la ci sëriñ sàmba ab jukki la ci moom xanaa di dikk fi mu wàcceb liggéey ginnaaw dañu bëgg a euh, noddu di waaj a julli gi ñu wàcce buñ bëgg ginnaaw dañuy wàcce kàddu gi rek nañ nañ tëjee foofu mooy tukki boobu may wax ne suñu Moussa da ci ci la ko gis daan ne ko mm-hmm. daan waajo goo ngi ne le mm-hmm. ci la si Masamba dikk daal di jaar daal di jaar euh, fële Saalum mu dikkee Saalum dikk na ba Kaffrine fekk fa chef de canton ba tuddoon Thiendella Thiendella Sène Thiendella Sène chef de canton la woon jamono jooja Thiendella Sène moo jàppale suñu Mahamadan sax ba suñu Mahamadan sos euh, kii Touba Mbella Thiendella moom nekkoon xarit suñu Masamba loolu benn bakkanam ba suñu Masamba sax waxoon ko daan ne ko su ma dikkaatee danaa fi sos ab dëkk ci biir Saloum kon loolu ba tey mën naa dugg ci diplomatie gi mu amoon waaye nag ci la continuer dikk ba Saloum mu ndikkee Saloum xew-xew ya suñu Xaasim doon wax loolu lépp foofu la xëyee bi mu ndikkee ba Kaolack xew xew yëpp foofu la xewee bi mu dikkee Kaolack nag bay génn bi muy génn Kaolack laataa mu egsi gën gi neew ci la suñ borom indi jéyee ji hmm. nga xam ne seret ba mu waroon ci la mel ne lu dàngang rek euh, mu xaw a saaraan xaw mu xaw caa am ay gaañu gaañu ay blessé hmm. ci lañ ko toxalee foofa indi ko Kaolack bi ñu ko indee Kaolack euh, indi ko ci néeg néeg booba sax nee nañ mas na faa dugg di faju néeg mm-hmm. bañ ko dalal bañ ko enterré Moustapha dugg di faju mm-hmm. léegi bu ñu ci néeg ba sax ab diir ca la suñ borom tuxalee ruux gi jëlee ko ci al aalamu sufli ila al aalamin olu yi mm-hmm. ila rafiq al ala ci gàttal nee na ci ci la ko suñ borom eh, tuxalee loolu nag moo ngi ko def ci guddik alxamis nga xam ne biñ ñu àll ba ci guddi guddik alxamis la ko ci la ko suñ suñ masamba def ci juróom-ñeenti fan ci weeru rajab ko gis nga gis ne kon suñu Masamba ni ñuy màggale Sampaan di ko fonk noonu la war a fonkee rajab nga ne euh, euh, juróom-ñeenti fan ci rajab ci la ko sëriñ Masamba def nga ne ci la rañaanee jóge fii ci àdduna dem ci al alamul aala loolu nag boo demee suñ mooy Ka moo ngi wax naan euh, ca yow malaakam déemi nag ñu fàtte ndax nu lëggéeyal Bàmba dee day bette yaa néega rocc ruux ci cheikh ma samba yow malakal mawti mu wuyu ji bamba bamba ko woo fii laylatil xamisi weeru rajab la wuyu ji li rumuusi rumuus ma ebammel weeru rajab la wuyu ji li rumuusi malaayikaak jinneeg rijaalul xëy bi ñépp di teeru ruuga duuna ay bi war na pakeem teral ko fil jinaani guddik juróom-ñeent lay fanaani mooy guddik juróom-ñeent fan ama unay chachin nga moo ngi mille mille mille trois cent soixante et un ci des Masamba euh, wàcc ab liggéey waaw muy ama unay chachin euh, ci des wàcc liggéey hmm. ama unay chachin ko taarix la bàcc ci Mbàkke caat rañaane Kawlax néeg bañ ko tabbaloon xatum na tomba la ruuga wuy yàlla muy borom ba mooy li ma doon wax léegi muy néeg booba ma faa dugg di faju wa man yuhaajir fi sabilillahi mbóot maa ko yóbbu foofa duna laahi nga xamee ne Kaolack dafaa demoon ngir di hijra di man di tukki léegi nag loolu moo yóbbu moo ko yóbboon foofa ba suñ borom daal di koy mooy foofa moom wali yoog ñëpp a ci yam ci nekk laxsa bi ngay faatoo mooy moment bi ngay faatoo doo ko xam mën nga xam kañ ngay faatu nag waaye moment bi nga koy def nag kenn xamu wa maa tadri nafsun maa saa taksibu xadaa wa maa tadri nafsun bi ay addin tamut inna allaha alimun bakkan xamul fan fan lay làqoo fa fa muy xamu ko léegi nag suñ ma sàmm ba mu fa jógee euh, ñu ñu ñu toxal ko daa ko jóge daa jëlee Kaolack indi ko fii ci fii ci Touba biñ ko indi Touba sax moom ñoo ngi ciy nettali nettali lu yéeme euh, nee biñ ko indi euh, daa bëggoon ñu jaarale ko yoonu Jurbel indi ko nit ñi nag bëggoon ko jaar yoonu Kaffrine mu ne yoonu Jurbel la bëgg a jaar day nag loolu ñoo ngi koy nettali xam naa nettali biir la mel ne yëfe yi daa daa siisu suñ Basiru daan ne ah moom day xam nga daa nuru daa sëriñ bi lool ci lépp <laughs> ginnaaw sëriñ bi nag Jurbel la jógee dikk Tuubaa na nañ ko jaarale foofa naa ne foofu lañ ko jaaral indi ko fii ci Tuubaa bi ñu ko indi fii ci Tuubaa ñu ko indi fii ci kër sëñ sëñ Maam Mor Mbàkke moom sëñ Masamba nga xam ne mooy rek xalifa bi fi nekk mooy suñu Moustapha mook ay magar la bokk ndey ak baay euh, soxna mooy seen waajur ci néeg boobu nga fi la jàkk ji nekk léegi foofu foofu lañ ko wàccee ñu ko fi wàccee lu yéeme yéeme moo moo faatu moo ci dund sëriñ bi lu yéeme lool hmm. nag mooy suñu Masamba laa tax mu def tukki boobu dafa nattoon nit bi ñu ko war a denc mooy fii ci euh, armée yi dafa nattoon néeg bi ñu ko war a denc natt ko ba mu jekk jël lam ko nattee nag daa koy jox sëñ Ibrahima Lo mu nekk lu yéeme. Mm-hmm. nga xam ne kon moom xamoon na ne moom. day dem euh, du sax. Mm-hmm. xam na day dem moo tax sëñ sëñ Moussa Ka sax loolu moo ko yaxal daan ne ca moom la ko waxoon rakkam jaa Cheikh Ibra Lo Cheikh Ibrahima Lo doonam jaa mm-hmm. nattoon na néeg ba. jox na tomba cerno cerno googu mooy Cheikh Ibrahima loolu ci nam natt na néeg ba jox na tomba cerno ca moom la xat booba la génn xarnu ba ko defee rek ca arnu booba ca ca ca année booba ci la euh, ci la dem ar-rafiqul a'la kon mu nekk lu yéeme waa la ci gën a yéeme it mooy bi ñu indi suñu sàmba war ko waajal bu ñu xoolee bagage dañ cee gis mu bind euh, intahaa maddul ajri bil intihaa du alkaddu bilantihaa mu ne coono yëpp dem na te du dikkati mukk waaye nag yoolu yàlla yëpp nag dëgmal si na ma te du jeex mukk mu nekk lu kii loo xam ne mm-hmm. feeñ ci wàcce ko Seex Masamba ci lañ ko indi fii ci bërëb bi mboole murid yëpp teewe ko daal di koy eh, def la nga xamee ne moo nañu defal ku wàccu liggéey kon eh, ñu wàccee foofu kàddu yi rek di sant yàlla bu baax a baax ci euh, dalal gi li ma doon wax léegi si masaam moom euh, xëju ci laxsa xëju ci ci ci saa saa su ndaw suñu masaam xëju ci moom day laaj euh, tatwil yi gudd a gudd yoo xam ne kii na ci léegi fi ne rek am na ci lu bëri ba loo xam ne bàyyi nañ ko taalif yi nga xam ne def nañ ko suñu masamba suñ Fall defal na ko taalif suñu Abdou Karim Touré defal na ko taalif suñ Moussa Ka it marché bi ñu def moom akay ah, moom moom dundam gépp moom da ko cee da ko cee da ko ah, ah, kon mën nañu wàcc ko kàddu gi di wax naan in uridu illa lislah ma sataat ma tawfiqi illa billah alayhi wa ilayhi unib wa rahmatullah ñoo ah, koy sëñ eh, Murtala allah kàddu yi rafet lool te muy alaaka mooy relation bi mu amoon société bi ak kilifa yi yi nii nga xamante ne noonu la ko tënkee am na solo macha allah euh, di rafetlu itam jotaay bu wér a wér di wàccee kàddu wi rek di ziyaare euh, ñi nga xamante ne ñooy taxawee màggal gi ku ci mel ne euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha mi xamante ne mooy suñu jiit te jii di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi guddal ak fanam wéral ay cëram te itam lépp loo xamante ne naal na ko na mu ko bëggee mu amee ko noonu euh, di ñaan itam mbooleem njaboot gi yëpp ci kër gi mbooleem képp koo xamante ni jamono yi des na fi ci ay njabootu ci leeri Cheikh Massamba ak képp koo xamante ni itam sëtam la euh, ñu ngi lay ziyaare bu ñaan yàlla suñu borom subhanahu taxaw leen euh, ca nañ ko gën a bëggee màggal gi itam ren moom xam naa ne dafay nekk màggal goo xamante ne euh, des koy euh, yema maayal woyefal ko euh, kon ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi waxee ku ci ne mën yem këram ñu mënta ñàkk teew rek mën nañoo teew ci wàllum njàngum alquran ak xasida lees koy wéyale ci sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala yu mel dundal ci Euh, ay ruux euh, yéene ci ay yiw kilifa gu mag goog nga xam ne moom lañ doon fàttaliku ji jii di Cheikh Massamba Mbacké euh, di wax ni itam li nga xamante ne moom lañ jàngee ci waxtaan wi man ñaar laa ci seetlu benn bi mooy yittewoo xam-xam benn bi mooy appliquer li nga jàng mm-hmm. yittewoo xam-xam itam loolu Serigne Touba ni ko sëñ Mourtada waxee rek da ce yaxal ba tàyyi sonn ba tàyyi ndax dafa wax ni al ilm wal amalu jawharaani li xayri daarayni yajlubaani mhm. yàlla subhaanahu wa taala itam wax ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun illa li yabudun googu boo demee ci ibnu abbas ni mu ko tafsiré mooy illa li yarifun mhm. ndax mineel bidaaya da nga ne woon ci taxallum nga nekk di tatbiq ilm ba ba mujj mu yëgale la ci al arifaan kon illa li yarifun naka noonu boo demee tamit ma ngay wax naan allahu alladi xalaqa sabaa samawatin wa min al ard mislahunna yatanazzalu amru baynahunna li taalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir li taalamu foofu mu nekk laamu taalil moo fa nekk kon jàng moom dafa di loo xamante ni surtout ci jamono ji waris na cee gën a taxaw bu baax a baax a baax yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajaat waaw gis nga kon ngëneel li ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala jox naka noonu itam tatbiq xam-xam bi xam-xam bi nga di ko jëfe loolu ci ay jikko ci ngëm ragal yàlla suñu borom ci ay ndigal yoo xam ne yàlla suñu borom da koy joxe nga di ko wéyale loolu itam jàngee naa ko ci dundu Sëriñ Massamba surtout lu aju ci wàllu jikko yi ndax ni ma ko waxee rek loolu mooy li nga xamante ni mooy yitteeloon dunduk awliyaa yi dunduk yi itam euh, anbiyaa yi mursalin yi yëpp mën nañoo wax ni yeggale jaam bi foofu noonu ci dëgg-dëgg kamaalul ihsaan moo leen fi taxoon ñëw ci loolu bu ñu xoolee suñ jamono ji nag ni mel doy na waar doy waar lool ba tax na bu ñu xoolee ku mel ne imaam al-Ghazali yi la mu ci téeram ba naan hada zamanu alladi kunna nuxaadiruhu fi qawli kaabin wa fi qawli ibni jamono ji mooy jamono ji ñu doon ci waxi Kaab ak waxi ki nga ne mooy Ibn Mas'ud yegg nañ ci ma ngay wax naan euh, tawala zaman laibna biha fa hada zaman bina yalhabu weesu nañ jamono joo xam ne moo daan fo ci ñun ñun ñaa ci ci daan fo yeegsi nañ ci jamono joo xamante ne nag jamono ji ci jëm boobu mooy fo ci ñun kon ni ñu war a def nag mooy dellu ci njàngale mag ñi di gëstu ci seeni jaar-jaar ngir lépp loo xamante ni soobu nga ko ci yoon rek am na ay références yoo ci fekk ñoom nag ay références yu rëy lañ ci dund yoonu ixlaas ak topp ndigal suñu borom subhanahu wa ak bàyyi tere ak itam yoonu ngëm yàlla moo tax li nga xamante ne moom lañ doon wéyali tey ji loolu mooy solo si ñu wàccee foofu kàddu yi kon jox soxna mu tëj jotaay bi mbokk yi ñi jàkkaaroo woon nag mooy jotaayu sëñ Massamba ndax liñ ci wax tuuti la waaye des na lu bari di sant bu baax di gërëm sunu sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekkoon di ko leeralal muy sëriñ Xaasim Mbàkke mu baax mi ak euh, sëriñ Murtala Mbàkke nekk ay ndaw yoo xam ne nekk sëti sëriñ Masamba waaye wax yàlla bu seen maam dellusiwaatoon jamono dana xam ne changé wuñ toogi ndax kii waajuram sëñ Moustapha moom sëñ Modou Faati Xari la kii waajuram euh, sëñ Fallou Mbàkke moom sëñ Mahmadan moom kon nag ñoom ñaar ñëpp nekk sët sëñ Masamba doxe lool te mate ko lool nag di ko ñaanal jàmm ak kattan xam-xam bi yokk lool ba fi nga xam ne fala seen maam nekkoon dab ko sax jafe na waaye dox doxinam ndax sërëb sëñ Tubaa lii rek lay jëriñ sërëb sëñ Masamba lii rek lay jëriñ bu ñuy waxtaane sa maam nga wax ca loo xam ne bala koo keneen a wax yow nga jàng ko gëstu ko wax ko dama naan sëñ Muntaxa dafa préparé ay ndaw yoo xam ne macha allah ci kanam tuuti at yi ñëw ñun danañ ko xam solo njaboot di ci bénéfice ñii dañ cee bokk. kon nag di jaajëfal bu baax a baax jotaay bi nga xam ne ci lañ ko doon defee jëwriñ ji nga xam ne mooy yor fii di coordonné tur bi. Hmm? sëñ Modou. sëñ Mahmoudou Lamine Bara Diouf mi nga xam ne saa suñ bëggee fii jëf jotaay dañu koy yombalal di ko jaajëfal bu baax di jaajëfal équipe bi nga xam ne ñoo nekk daare kaamil yëpp di jaajëfal tam équipe bi nga xam ne. ñoo topp sama ginnaaw ba waxtaan wi ma ne soxna jaara rek ngeen di gis mais dama ànd équipe boo xam ne macha allah jàmbaare am ngëm-ngëm am pas-pas bëgg sëriñ Tuubaa moom moo laa àndal na sama cameraman bi nga xam ne fu ne laa koy yóbbu heure bu ne laa koy woo muy saani nekk ku baax ku amuk bi amul lu dul sëriñ Tuubaa bëgg lu dul njaboot sëriñ Tuubaa kon nag di ko jaajëfal baax di leen jox rendez-vous nag ci koor gi ci yeneen jotaay incha allah ñuy ñaan yàlla yaa yóbbuñ ci màggal ga ak jàmm nangu ñu ñaan ñi te yàlla fi yàlla jële mbas ndax yàlla rek moo fi mën a jële yàlla mi nga xam daal moom rek moo fi mën a jële mbas yàlla fi jël ñu dellu lan daan delloo ndax ñun jullit rawatina yoonu murit li leen xam dem leen te fekkalante ak joo waxtaane mag ñi di leen jaajëfal beneen yoon incha allah